الله من كل كريم أكرمه waaw Serigne Cheikh Magal 2020 gi. ah xanaa sant rek ba ñu fekkee rek moom la ñu sant bu baax fekkee moo ëpp solo da yàlla di fekkee rek. dëgg la waaw loolu يا الله يا مقلب القلوب ci loo nekk nag. ñu ngi sant Serigne Saliou bu baax a baax. tur bi nan la Abdou Khadir ñu koy woowee Jili Saliou. Jili Saliou waaw da ñëw pour jëmale si Jili Saliou wala ñëw pour saari sëñ bi. dañoo ñëw ngir ziar si ko ndax dañoo bokk ci jëriñam yi. ñu ngi féetee Daara Touba Hollande. waaw tey nu gisee bi maanaam euh, weesu na lañu lañu defoon euh, daaw ndaxte tey bu nekk day gàcceel euh, dëndam kon tey jii. nga nga gis mélodie ak ñëpp yees taal bi yees waaw ñun daal tànk kanam Sëriñ Tuubaa lañ si gis waaw waaw waaw jërëjëf barkeb Sëriñ Saliou màggalu nag nee na màggalu ren gi nag mel na ni mel na ni ameel na mel na ni ameel na cant gu rëy goo xam ne da koo ameel njaboot gi muy taalibe yi ñeenti weer mbaa juróom benn weer ca ginnaaw nee na ñeenti weer mbaa juróom benn weer ca ginnaaw booba ak léegi booba ak léegi kenn attandikuwul kenn attandikuwul lu waay am lu waay am jox nga ko jox nga ko ko ngir ñu def ko ngir rek ñu def ko ci màggalu sëñ Tuubaa gi coono boobu ñu tegoo nee na coono boobu bii ñu tegoo koo tuddee coono rek. nee na dañ koo tuddee coono rek. waaye mooy sunu ndimbal. nee na waaye loolu lii mooy sunu ndimbal. nun kat. ndax nun ay murit lañu. ay murit lañu. ay cantaakoon lañu. liggéeyal Serigne Touba. liggéeyal Serigne Touba. rek lan nu sàkke woon. loolu rek lan nu sàkke woon. kon. ne mooy mu ne kon. mënuñu koo tuddee sax ab coono. nee na kon mënuñu koo tuddee ab coono. waaye nag ñu mat a jaajëfal lañu. nee na waaye nag ñun taalibe yi day ñu mat a jëfal lañu. ndax seenu coono ci ci ci ci liggéey bi. nee na ndax seenu coono. pësteef bu ñu am. pësteef bu ñu am. ci liggéey bi Serigne tubaa rek tax. nee na te sëriñ tubaa rek tax. ñun de ñu lott lañu. Serigne bi nee na moom day ku lott la. waaye Serigne Touba day. waaye Serigne Touba day moom. ku am pay ku la. ñaan na moo ngi ñaan mu fayal. maa ngi maa bu baax nee na moo ngi sant nag bu baax a baax. suñu sama njabootu nee na mu ngi sant bu baax njabootu boppam. mooy ñi ma seqal sëriñ. nee na mooy ñi mu seqal sëriñ. ñuy ay rakkam. nee na du fi nekk nag di lim. waaye ñoom na waaye ñoom rek ñoom ñépp rek. kenn ku ci nekk. kenn ku ci nekk. yëg naa. na cant. cant gu mu am ci ci yow. taxawaay seen taxawaay nee na ñoom daal seen taxawaay. sëriñ bi nee na moo ngi koy rafetlu. soxna yu tedd yi nee na soxna yu tedd yi nga xam ni. ñooy àndandooy sëriñ ñooy àndandooy sëriñ bi. soxna mboose ak soxna Aïcha. muy soxna mboose ak soxna Aïcha. taxawaay boobu nee na taxawaay boobu yi rek. moom lañu am ci yëf yi. moo sëriñ bi nee na ba tax na moo ngi leen di jooyal ñoom it. ak cant gu wér. ak cant na ñoo ñii day di soxna Aïcha ak soxna mboose wuutale wun kook doom yi mu jur yu nu jur. seen taxawaay daal. nee na seen taxawaay daal. maa ngi seere àdduna. nee na moo ngi seere àdduna. ne moom day rafet na. sama rakk yi nag. na rakkam yi nag. dara bettu ma ci mbir mi seen nee na rakkam yi nag dara bettu ko ci nag ndax mbir mi seen mbir te kilifa ga. nee na te kilifa ga. daf noo jàngal ak taalibi. daf noo jàngal ak taalibi. ci la ñu nee na ci la leen nargonool. ñoom ñëpp. nee na ñoom ñëpp. ci daara yi Serigne Saliou yi lañ nekkoon. ñoom ñëpp ci daara yi Serigne Saliou Mbacke yi la ñu nekkoon. jëmm ji toog. nee na jëmm ji toog. di xaadim di Serigne xaadim yi. ñëpp xam nañ ko ci wetu Serigne. nee na ñëpp xamoon nañ ko ci wetu Serigne Saliou Mbacke. kon ñun. nee na kon ñoom. yàlla. wax dëgg yàlla. ci ak taalibe rek la ñu mas nekk. ñoom day ci ak taalibe rek la ñu mas a nekk. ak taalibe rek la ñu xam. nee na ci ak taalibe rek la ñu xam. ci lañ ci lañ leen toqi. ëpp ci ñun. nee na ñi ëpp ci ñoom. bi ñuy dem daara. bi ñuy dem daara. amuñu fukki at. amuñu fukki at. kon. kon. toog. fa toog. am fa ngërëmul Serigne Saliou. ba ba am fa ngërëmal Serigne Saliou. kon wax dëgg yàlla. dara bettuñu na kon dara bettu ko ci doxin wii rakkam yi dox jëm ci moom. sant suñu bopp yi. na mu ngi sant ay bokki boppam. mu ngi ay jarbaati sëriñ bi. mu ngi ay jarbaati sëriñ bi. di ay sëtam. di ay sëtam. waa jaay njuréel waa jaay njuréel ñooñu dama leen di tudd sëriñ bi nee na ñooñu da leen di tudd ndax ñoom de danoo sagal sëriñ bi lool ndax ñoom de danoo sagal sëriñ bi lool mel na ni mel na ni kenn mënu leen ci liggéey mel na ni kenn mënu leen ci liggéey bii ah li may wax nee na ah li muy wax nag ci kanamu taalibe yi la koy ci kanamu taalibe yi la koy wax njabootug sëriñ nee na njabootug sëriñ bi ñu leen di wax jaay njuréel nee na ñu leen di wax jaay njuréel ñooñu de kenn mënu leen ci liggéeyu sëriñ nee na ñooñi kenn mënu leen ci liggéeyu sëriñ bi mooy li mu wax léegi nee mooy li mu wax léegi rek. sëriñ bi sëriñ bi. loolu la ñu nàmpatal ci loolu rek la leen nàmpatal. jural na ak cant lool. nee na loolu ba tax na jural na ko ak cant lool. wax ji koy wax nag. nee na wax ji mu koy wax. li mu ci jublu sant ko rek. nee li mu ci jublu mooy sant ko rek. ndax ku la jaarale ci loolu. nee na ku la jaarale ci loolu. tërbiye la ci yoonu sëriñ bi. tërbiye la ci yoonu sëriñ bi. bëgg loola sëriñ bi. bëgg bi. di ci jëfloo. di la ci jëfloo. kooku amatoo payam. amatoo payam. nee na loolu rek moo taxoon mu ne dina ci wax nee na moo tax mu ne woon dana jël kàddu sant mbooloo mi sant sëriñ sant sëriñ bi sëriñ Cheikh nee na sëriñ Cheikh mu koy jooyal sunu cant sëriñ bi nee na mu ngi koy jooyal ak cantam de dimbali na nu lool nee na dimbali na leen lool boobaak léegi nee na boobaak léegi mi mi ngi ñuy na mu ngi leen di tette de. di di boole ci liggéeyu nee na di leen boole ci liggéeyu sëriñ tubaab yi di ñu jox liggéey yu mu fonk. di di ko di ko jox liggéey yoo xam ne yu mu fonk la. biir kër sëriñ Saliou. nee na biir kër sëriñ Saliou. kenn mësu faa dugg. nee na kenn mësu faa dugg. bu leet. nee na bu leet. sëriñ bi. sëriñ bi. digle digle. di fa def dara. di fa dara. sant ko sant ko ko. loolu nee na loolu nag day ndam lu fës. ndam lu rëy rëy muy ndam lu na loolu day mat na nu sant Serigne ceeb Mbacke bu baax. dimbali nu rek. nee na rek. la ci jublu nee na loolu rek la ci jublu. waaw eh, waxaguma dara. nee na waxagul dara. lu jëm ci tool yi. lu jëmagul lu jëm ci tool yi. waaye maa ngi leen di ñaan. nee na waaye moo ngi ñaan. sunu yéen cantaakoon yi yéen cantaakoon yi. ngeen waaj. ngeen waaj. te déglu ndigal. te déglu ndigal. xel koom ñëw na. xel koom ñëw na. te ñu ci yebalee. buñ te buñ ñu ci yebalee. kenn duñu ko kenn duñu ci ji. wa waxaguñ ma dara nag. sëriñ bi nee na waxaguñ ko dara nag. waaye nii ma ko gisee. waaye nii mu gisee yëf yi. ah ah nanu waaj nanu waaj te loolu rek nag la ñu bëgg nee na te nun de lool rek lañu bëgg nag loolu rek la xam nee na loolu rek la ñu xam xel kom xel kom fa la ñu toqee fa la ñu toqee fala nu fala fala nu liggéeyalee sëriñ bi nee na fala ñu liggéeyalee sëriñ bi garaat bu sëñ becco am nee na garaat bu sëñ becco am foofee la ko dégg foofee la ko jëlee kon kon nanu déglu nanu déglu te waaj te waaj ba jekk te ba jekk loolu weesoo. bu loolu weesoo. mu ngi sant njabootu boppam. nee na mu ngi sant njabootu boppam gi. moom sëriñ Cheikh. moom Serigne Cheikh. waaw moom day njaboot gi day. nee na njabootu Serigne Cheikh. dama dama yëg ci ñoom ak cant lool. Serigne bi nee na njabootu Serigne Cheikh da cee yëg ak cant lool. ndax taxawaay bu ñu am. ndax taxawaay bu ñu am. ci bëgg noo dimbali rek. ci bëgg leen a dimbali. di ñu joyanti. di ñu joyanti. di ñu jàppale. di leen jàppale. ci ci biir liggéey bi. ci biir liggéey bi. loolu nag yëg nañ ko ba bi nee na loolu nag yëg nañ ko mu jaral leen ju di ci sant nag. nee na mu ngi leen di seereel bokki taalibe yi na sant na njabootug sëriñ Cheikh Mbacke. Euh, bu loolu weesoo. nee na bu loolu weesoo. am na lu ma naal. nee na am na lu mu naal. ba waxoon ci. ba waxoon ci. mooy suba. mooy suba. bu ginnaaw tàkkusaan. ginnaaw tàkkusaan. bëgg naa teg xeer wu njëkk. nee na bëgg na teg xeer wu njëkk. kër sëriñ bi kër sëriñ bi. ndax moom day. nee na ndax moom day. daa amoon ay mébét. daa daa amoon ay mébét ci këram gii. ba ba daaneeloon ko. ba daaneeloon ko. kër gi nag. nee na kër gi nag. mu leen di fàttali cosaanam. mu leen mu nuy fàttali cosaanam. ko Serigne Saliou jox. muy kër gu ko sëriñ Saliou jox. rëddalal ko boppam. rëddalal ko ko boppam. ba mu dëkkoon fi. ba mu dëkkoon fi. Serigne Saliou ci boppam. nee na Serigne Saliou ci boppam. ganesi na ko. ganesi na ko ci këram gii. kon muy kër goo xam ne. nee na muy kër goo xam ne kër gu kër am importance. kër gu am importance la. sëriñ bi naaloon ci ay naal. nee na sëriñ bi naaloon ci ay naal. mëbëtam yooyu nag. nee na mëbëtam yooyu. laa bëgg nag ñuy nee na sëriñ bi nee na moom la bëgg nu yeggale ko. te kat du ko def ku dul nee na te kenn du ko def ku dul ñun taalibe yi. bu subaa. bu subaa. bëgg naa ñu àndandoo. nee na bëgg na ñu àndandoo. te xeer wu jëkk wi. teg xeer wu jëkk wi. te waajal ko. te waajal ko balaa déwén. bu déwén. buñ fiy ñëw. buñ fiy ñëw. man fee man fee màggale. loolu daal. neen loolu daal. laa ne woon dinaa ko wax. loolu la ne woon dina ko wax. maa ngi santaat booloo bi bu baax. nee na moo ngi santaat booloo bi bu baax a baax. nii guddi gi tëddee nag. nee na nii guddi gi tëddee. sant naa ci. sant na ci bu baax a baax. ndax booba démb ba tey. nee na démb ba tey. kuréelu xasida yi. kuréelu xasida yi. njàng mi ñu fi jàng. njàng mi ñu fiy njàng. moom day jar naa sant Serigne Touba. nee na jar naa sant Serigne Touba de. liñ fi jàng ci xasaayiti Serigne. nee na liñ fi jàng ci xasaayiti Serigne Touba yi. kuréel bu wàcc. kuréel bu wàcc. beneen kuréel yéeg. beneen kuréel yéeg. ngay xamee ni. nee ci ngay xamee ni. suñu jàmbaar ja. ci ngay xamee suñu jàmbaar ja sëriñ Béthio. liggéeyam ba rëy na. liggéeyam ba rëy na. gaa boot seen loxo yi. nee na gaa ñiy boot seen loxo yi. di jàng di jàng xasaay itam yi. boobaag léegi. boobaag ba tey. kuréel bu yéeg. kuréel bu yéeg. beneen yéeg. beneen yéeg. ba fii may waxee yow. ba fii muy waxee ak loolu day. jar naa sant Serigne. nee na loolu day jar naa sant Serigne Touba. maa ngi ndokkeel it mbooloo mi. nee na mu ngi ndokkeelaat mbooloo mi bu baax a baax. mbooloo mu yiw mii. mbooloo mu yiw mii. seen dal gi. seen dal gi. seen yiw gi. seen yiw gi. ñuy jàng xasida yi Serigne Touba yi. ñuy jàng xasaay ci Serigne Touba yi. bu bu weñ naawee sax nga dégg. nee na bu weñ naawee sax nga dégg ko. ah wow doxin de. nee na wow doxin de yi. mënta ñàkk ma sant leen. nee na mënta ñàkk nag mu sant ci bokki taalibe yi. bii yar ma gis. nee na bii yar. lii moom lu yees la. nee na bii moom lu yees peq la. lii moom ku fi ne. nee na ku fi ne. ku nekk. ne. xam nga ni xam nga ni lii moom yees na xam nga ni lii moom yees na nii rek la war di nee na nii rek la war di demee nii rek la ñu war a. nee na nii rek la war a demee. allahu min kulli karimin akramahu man amahu qalduhum takrama